salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi ziar ñëpp ah, di def vidéo bu ci li xew ci permanence APR bi ci palais de la république <laughs> Macky Sall <laughs> yaa ngi bëgg a nag président lii mbaa la ah waaye lii mbaa la waaye ñun ñoo la dénkoon ñoo la aaloon li nga moom li nga yor ñoo ko moom fukki at ak ñaar lañ ko jox moom lañ ko joxoon sa moroom am ñu xeex dee pour nga jot ci nga fégal war ñoo delloo waaw ah waaye lu fi jar xuppaate bi <laughs> lu fi jar menace bi lu fi jar nappe bi mën naa ñàkk caalit gi moom mun naa ñàkk moom xanaa xanaa du woon pour mu servir rek nguur gi xanaa du woon pour servir du woon pour liggéeyal ñu macha allah lu ci mat ak lu ci matul lu ci baax ak lu ci bon lépp yow jëre nga jëf rek ndax yow pare nga ci mënuñu ko ñaan ci njekk nag ndax ñoo ko moom xëy na ñi nga xam ni yow yaa leen fal teg leen fi yaa tax xëy na ñoom. <laughs> ñu xam luy privilège yaa tax ñu xam luy ay tukkee kii ak yenn xeetu dund yi xëy na ñooñu mën nañ la ko ñaan ci njëkk comme niñ ko defee ci seen théâtre boobu tey am nañu la ñaan bay waaj a jooy ah, président boo ñu bàyyee ñun fi ñu jëm dañuy torox xamuñu ku dul yow yaay sunu yàlla sunu yeneent yaay sunu lépp waaw ah, mbir mbir mi nag xanaa nekkatul jàmm mujj naa metti itam subhanallah la xanaa yéen faluñu leen pour ngeen liggéey nit ñi doom ah de yéen ñi leen faloon ñoom ngeen wëlbatiku di leen xas naan leen nitu réseaux sociaux yi ak nitu télé yeeg rajo yi mu ne ñooñu de ñoo xeexoon ba jox leen réew mi waaye léegi ñoom ngeen di tëkku ak di leen joxañ ah waay waay caalit ak leen di bëgg dugg nekk caalit <laughs> caalit nag mu ngi leen di bëgg a dugg waaye euh, déet bu leen ko defee noonu kon day ñaaw gis nga colonisateur yi ak esclavagistes yi yoroon sunu maam yi doon leen jaay sax ba ñuy dem sax dañoo dem ak ngor wi sax génnee seen loxo bàyyi ak ngor àdduna léppay jeex nguur gi lu ngeen ci langaamu langaamu du ngeen ko yóbbaale da ngeen ko fi bàyyi waaye yéen tamit nag xanaa nekkatul jàmm ak salaam rek ah président yow nga ne ñooñu nga dajale foofu ñoom ñooy représenté Sénégal parce que dañ leen a fat ba président kon ba ngay def sa référendum yi te nga woowoon ñooñu dajale leen laaj leen wii wala non ah <laughs> ñun de askan wi nga xeeb tey ñun de nga laajoon wii ak non jël say oto wër pëndal ñépp daal di jaxase ak kilifa diine daal na ñun dañoo bëgg a lu lëndëmal xelu nit ñi wante wii bi moom mooy deux mandats consécutifs amatul. ali président da ngay toog di xaste naan ay intellectuel mooy ki nga xamante ne du trafiquer la vérité waa président kon ki nga xamante ne moom dafa nu woon démb ñun nëpp peut faire deux mandats consécutifs moom ak su ma faloo deux mille dix neuf moom après c'est fini faudra partir kooku moom nuñ koy wooye man na nga maa ngi bëgg a jaaxle bu sobaale man de maa ngi bëgg a jommi président ñii bu leen topp ñii sa naxa naxa yi nga dajale ñii fëgg seeni dënn yaa tax ñu dugg avion yaa tax ñu ami kër yaa tax ñu ami oto yaa tax ñu mel ni ñu mel tey ñu bare ci ñoom danga leen a defar démb niñ meloon yàlla rek a xam te <laughs> macha allah nga defar leen ba ñu baax ñii bu leen topp yéen yéen yéen bëgg nguur jaral na leen lii yëpp waaye yéen xanaa lii nekkatul jàmm waaye 17 millions de sénégalais ngeen di gis président Macky Sall moom képp kenn moom kese ci mën ay waaye fa ngeen bàyyi sang yeeg saxaaba yi yeneen yu baax yi nga xamante ne ñoom ñëpp yàlla woon nañu kenn moom kenn képp mën <laughs> ku dul moom da ngay dem waaye yéen tamit baar bi yëkkati na de baar bi kawe na de wàccee leen ko tuuti bokk wàccee leen tuuti baar bi sax baar bi te ngeen ko wàccee tuuti ah daal ci laa xaale sax ay cinq dix personnes baar bi kawe na de yéen tamit on biyataa on mbaawaa mbiya on mbaawaa ni ah, ko tukkuleer di waxee wax leen ni mënu leen yéen it nag ah enchère bi yëg na enchère bi yëg na de def leen ndànk rek nag ànd leen ak seen sago ak seen xel lii nguur jaru ko lii nguur jaru ko privilège jaru ko xam nga nekk àdduna nit da ngay liggéey gis nga boo bëggee tedd te doo sonn doo xalaat décret doo jël sa àdduna sëf ko benn nit da ngay wóolu sa bopp wóolu yàlla da ngay teel a xëy di ñefe di def nii di liggéey ni Sénégalais yëpp di daj suba ak ngoon di mbëkkante di di dugg dugg di génn waaye yéen nag laa ñu bari ci yéen nguur gee tax ngeen waxaale ngeen jënd tonu nguur gee tax ngeen doon li ngeen doon tey seen fit yi delloo si leen ko lan la ci nguur rek di day jeex di waaye nag pare ngeen da dem nag fukki at ak ñaar moom wax dëgg yàlla ay léeween moom lu ngeen ci deful woon xam leen ni loolu leen ko defati waaw bu fekkente ne nag da ngeen a commencé yàpp nit ñi jàpp ne suñu bakkan yi ak suñu bakkanu doom yi ay ay kayitu këyitu mouchoir la yu ñuy xotti ba tax na même bu ñu reyee fan fanweer ci suñu ay bakkan ngeen di dem di sànni jamara di fittaku ko di rax rax bëccëgu foog ni mën ngeen fee rey yeneen sénégalais ndax toog ci nguur gi nag delloo si leen seen xel nag yéen nag gis nga yéen yéen wax ak yéen dafa jot de <laughs> yéen nag yéen woo leen nag tàcc leen defal leen ndëpp jot na nag yéen ndëppal leen jot na nag yéen ñii ndëppal leen jot na yéen daal da ngeen foog ni yéen pour toog ci pouvoir gi daal yéen parce que yéen pour yéen pouvoir yéen privilège la yéen pouvoir war a nekk di liggéey ñàkki nelaw sonn di liggéeyal askan wi nekk jaamu askan wi kii moo tax daal ah yéen wax ak jot na nag yéen wax ak yéen jot na yéen nag xamu leen qu'est-ce li xale di wax qu'est-ce la yéen seen yéen seen terrain bii ngeen jël nga xam ne du teer teer la waaye du teer yéen xamu leen fu ngeen di teeree yéen yéen nag yéen nag xoolal yéen ay fas yu rëcc ngeen de attention yéen seen fas yi ngeen jël def ko seen slogan yéen ay fas yu amul buum ngeen fas yu rëcc yu amul buum réglé leen yéen lii lan la yéen lii lan la lan la yéen nguur fukki at ak ñaar yéen lu ngeen fu nguuruwul di ngeen ko nguuruwaat may wax nag ancien socialiste yi nga xam ne ñoom bañ juddoo ba léegi ñu ngi ci ñu ngi ci ndab li ñoom ñooñ moom duñ doyal moom waaye mu ne tudd leen yàlla ngeen dem toog yéen a gën sénégalais yi waaye yéen a gën million de sénégalais yi nga xamante ne mosuñoo nguuru ñoo am kër mosuñoo am location mosuñoo am sax xëy bu dëgër yéen a leen gën wala Sénégal yéen yéen lañ ko defaral ñooñu bokkuñu ci. eh yéen nekk leen nit nekk leen nit delloosi leen seen fit yi. ñu wax faj fañ faj wàccaaca wàcc fan wàcc nag daanoo ci gën a gaaw te yéen nag ku leen ba ma xul ngeen waddu du ngeen bàyyi ah <laughs> man damaa tiit sax man dama déglu lii man waa man damay gént wala lu mu doon waaye président itam waaye yow ñii ñoo lay may fit woo nga ñii dem nañ ci te télé waxal ma doyul demal nañ la àdduna wëral la àdduna wër ngir këpp doyul tey nag ngay dajale ay élu naan way ñun la yàlla falal ñun ñoo ñii politique lii la fal waaye yow bàyyil ba ngeen wàcc ba xool ndax di ngeen falu ay gétt lañu wala ay xar yoo xamante da ngeen leen di diri rek di leen yóbbu fu ngeen dem teg leen gis ngeen nit ñi duñu ay gétt duñu ay baay ma ba ngeen xamante ne kuñ ci fal sa mairie nga ñëw yokk-yokki man lañ fal bu ñu falee nag ay carte leen mission lañ leen jox ngeen war ko liggéey yéen a ñàkk yéen li ngeen war a liggéey ci seen gox yi amu leen lenn lu ngeen mën a liggéey yéen sans le gouvernement ah yéen daal bu ngeen président bu dul président yéen du ngeen liggéey waaye kon yéen lu ñu leen falee woon yéen ñi leen fal maire laa yërëm ñi leen fal maire yërëm naa leen ñoo ñoo walaakaan yéen ñu def leen maire ngeen ne yéen seen adduna ak seen alaaxira bu ngeen ñàkkee président yéen pare ngeen ci ay waay delloo si leen seen xel nag ñu ni ngeen la ñoo bokk réew mi ah président nag moom ah loo bañ ma egsi bu ko jàppal bis sénégalais suba dimanche la waaye dimanche leen dal leen tey samedi soir la samedi leen bu kenn yëngatu bu kenn sëqat bu leen dóore bu leen fayu ndax gis nga yenn yi tàppaas la de tey la xeex nag mbiru tàppet la tàppet du njëkk a da ngay jéem a xool dóor bi fu muy ñëw nga fent ko préparer riposte waaye tàppet du njëkk a dóore ku am fit du njëkk a dóore tàppet doo ngay njëkk a dóore day dóore yuuxu bu ñu ay tàppet def leen ndànk leen di jot yàggatu président ñu ngi lay déglu wallaay ñu ngi lay déglu ñun yow rek lañ déglu ñun ñun lu ñu mënti wax loo ñu mënti wax président nga baalal ñu rek ñun ñoo la joxoon waaye nag duñ la ñaan njekk delloo ñu suñu yëf ci jàmm ak teraanga waaye waaye lii du ko fi jar nag mer bee kii kenn mënuma influencé faalewuma kenn ñi ñi ñi ñaa pétrole bi moo leen moo leen moo leen rakkaaju la waaye kon yéen kon yéen du leen kon yéen lan moo leen dal bu fekkente nit ñi pétrole lañ gis ak waa président yow pétrole bi moom ah mbaa da naa jege kii kii yi mbànd yi yuur yi dañoo wadd waaw ah, lii nag moom du jàmm nag lii du jàmm de def leen ndànk de mu yow ah xalaas salaamaaleykum xonq li bët président ñun amuñu keneen ku dul yow wuti leen keneen nag balaa ngeen di perte mës naa koo gis mës naa koo dégg ah waay waay waay déet waay non mais dëgg eh eh xam nga lan la xam nga lan laa leen di xamal dëkk bi moomu leen ko seen maam moomuñu ko seeni i ndey moomuñu ko seen i baay moomuñu ko réew mi dañ ko dañ ko seen i moroom ñoo ki nekkoon démb dem nañ toog àdduna du pouvoir ah mais yéen lan la mais yéen tamit mais lan la di wàcc pare ngeen ah lan ngay waaj président ah parce que yow ah gis nga président ñun nag suñu génération bi xam nga rek suñuy wax dafa neexul président yow bokkoo yow mënoo bokk <laughs> yow doo bokk yow amul fooy jaar ba bokk te président gis nga soo bokkee gis nga xam nga xale benn xale lañ rey fee France di tàkk yow nag trente et quelques personnes dee fii ngay doxantu nu mu la neexee di sànneeku di falarniku ñi nga àndal di sànneeku di falarniku ñu mu leen neexee waaye président loolu yëpp jeex na fi président loolu jeex na de président loolu jeex na force occulte yi nga woote woon jël nañ avion dem nañu yaa leen yóbbaale woon ci vol bi fële France wàcc nga leen fa ña ngay taal France fii force occulte nekkatu fi ay sénégalais ak seeni nopp ñu jàkkaarloog yow ñoo fi ne te ñu ngi lay xaar nag ñu ngi lay déglu ñu ngi yow di la déglu yow waxal rek yow waxal rek yow wax président waxal yow ay kenn napp la. kenn kiiwu la waxal rek yow waxal takk bu mu dëgër nga wax acca vas-y président allez-y ñu ngi lay déglu acca acca na ci daal waaw lundi lundi lundi matin wala lundi soir <laughs> ban heure la ci lundi non xam nga nag war a dem tey bëggoo dem mooy leen rafetal bi defaraat leen toogaay yi quand La vie ne s'arrête pas à un, à un, pouvoir. Même si vous perdez le pouvoir, vous allez rester. On ne va pas vous récupérer vos dents pour ceux qui ont changé de dents. On ne va pas vous récupérer euh, vos belles tenues et tout ça. On va vous laisser ça. Pas de souci. Mais il faut, faut partir. Il faut partir. D'accord Il faut, faut se préparer là. Il faut faire les valises. Eh, Africain, venez dire à président Macky Sall, il faut qu'il parte. Il faut partir. C'est l'heure de partir. Mais pour partir là, le, le, le, le monsieur, il est fâché. Sa maison, tout le monde est fâché. Il y a même des gens qui pleurent. Oh. Partir. Vous nous voulez faire toutes ces histoires-là. Hein? Ah, Sabali, faut partir maintenant, c'est fini. Il faut partir maintenant, c'est faut partir, Gassi. Faut dire au revoir. D'accord? Au revoir. Faut partir. D'accord? Lundi, à lundi. Lundi matin ou lundi soir. On est à l'écoute. Hein? Les cousines, la les cousins. Pour venir écouter avec nous lundi, là. Il a le, le président qui va parler. Oui, le papa Macky Sall, il va parler. <laughs> Il va parler au lundi. Eh, lundi, là, c'est un grand jour. De... <laughs> eh, lundi. Lundi, il y a des Ils ont commencé déjà avoir problème de vente la Ça fait trop mal. Ils ont peur. Eh, Allah. Vous n'avez pas fait... Vous avez fait beaucoup de choses pas bien. Pourquoi vous avez peur Vous avez trop détourné l'argent ou quoi Pourquoi vous n'avez peur Hein Vous partez, vous êtes énervé comme ça là. Non, on ne peut pas partir. Sans toi, on pas eh, partir aussi. Il faut reposer. Hein? Il y vie après le pouvoir. Il hein? faut partir. Il <laughs> faut partir. Président, au revoir. Il faut préparer les bagages. Le palais, là, il ne faut pas tout dévaliser. Il faut laisser la palais là-bas. Il faut partir. Il faut nous laisser avec nos candidats choisis. Il uh -huh. faut nous laisser avec nos candidats choisis. Pour pas chercher problème ici. Hein. Ici, là, si tu cherches palabre, tu vas trouver Force occulte, là, c'est en France, c'est en train de... de, de, de là, n'y a pas terroriste, il n'y a pas rebelle. Les terroristes, en prison. Les rebelles, en prison. Force occulte en France. Maintenant, c'est nous dans nous. C'est nous dans nous. Le combat, là, il bien bon. On attend. Diabate, Bobagale. ngeen di dem ngeen nekk fii di xataraay di nappaateeg di ma pare ngeen yow Macky Sall doo bokk ñëppay boppam des yow